bañ ko jaayee réew mi la ko waa réew mi jënd kon nag jomaay jowaayam ñëpp kon ñi ngi woo population Kaolack bépp ñu génn teeru président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci Kaolack ndangaan gaa yi gaa yi siyaare naa leen jox naa leen seen wàccuwaay olof njaay dana ku muñ muuñ waaye olof njaay dana ku muñ muuñ lu waay xaar rek bis dana ñëw mu fekk la fa kon nag président Diomaye ma nga jëm Kaolack suba insha allahu rabbi di wax patriote yi Kaolack yëpp patriote Saloum yëpp xam ne président de la république Bassirou Diomaye jaxar fay ma nga jëm kaolax ndangan and ak patriote yek sénégalais yépp ndax nak nag Diomaye Sénégal yépp la légui ndax alali patriote la won waye nak bañ ko jaayé réew mi lako wa réew mi jënd kon nag Diomaye Diomayeem ñëpp kon ñi ngi wo population kaolax bép ñu génn téru président de la république Bassirou Diomaye jaxar fay ci kaolax ndangan gaay